Café Teranga, le café des Le stick est à 25 francs seulement. Ladies and gentlemen, comme vous le savez, Marodi sélectionne les meilleures vidéos du Sénégal. Alors, téléchargez vite l'application. yaa marché.

Tu es coin pratiquement c'est quoi qu'est-ce qui se passe encore. passe rien du tout rassure-toi. non il se passe quelque chose qui est beaucoup beaucoup, beaucoup, ne non mais tu me dis. Edou dara t'inquiète pas dara xewul. ce comportement. mega problem. Jak problem. c'est vrai que génn bi neex na baax na xam nañ ko gëj a def mais soo gisee tey jii nii ma gën a insister pour ñu génn c'était juste pour ñu waxtaan parce que temps yi j'ai remarqué un truc tu t'isoles tu ne communiques presque pas te su fekkee aussi dafa am loo xam ne même si tu dis que ça ne vient pas de moi mais nga wax ma ma xam moo ma gënal nga garder ko nii ak nu mu mënti demee tu sais que je serai toujours là pour toi donc wax ma soo bokkul lu may xamee. Tu as parfaitement raison. C'est vrai que tant et je suis très distante. Mais rassure-toi, ça n'a rien à voir avec Kyo. soo c'est ma mel c'est parce que ça fait voir papa bi moo may tracassé mais du dara. tu sais Ebou neexul tamit sa papa va ba nga laboratoire. nii nga xëy un bonjour am ba di Dans le cas, c'est la mère du dara. je m'excuse aussi pour ce mon comportement. tu as tu as parfaitement raison aussi hein t'as pas à t'excuser donc euh, li dal sa papa nii dal na ay papa yu bëri mais bon yow au moins sa papa am na chance am doom bu jigéen bu mel ni yow bu koy soutenir Et yow aussi tu n'es pas seul dedans donc on te conseille, yaay mi on va tout faire pour te soutenir. et tout ça va. Wow je me disais bien que c'était vous. boobu de ñun la ñoo toog fii nii comment vas-tu Charlotte. ça va bien et toi. am nga gan hein? ça va. Mais assieds pas en place. J'ai l'habitude de venir ici si c'est mon fils. Hein? Ah, c'est vrai que c'est un coin sympa. Mais euh, désolée pour la dernière fois, pour Dinebi. Je m'excuse vraiment. Non, t'inquiète, je comprends. Et m'a tout expliqué. Ah oui Oui. <laughs> C'est super. <laughs> ça va. Ça va, tranquille, on est là, relaxer. Vous sortez en couple ah, comme ça. ça <laughs> Parfait. <laughs> Mais je ne savais pas que tu cherchais un travail comme ça. Hein. Pourtant, il y a un profil qu'on cherche au bureau depuis tellement longtemps. On n'arrive pas à trouver. Ah bon Et je pense à toi, si ça t'intéresse, bien sûr. Waouh Qu'est-ce que tu en penses Je trouve que c'est une bonne idée. <laughs> tu sais quoi, viens demain au bureau, très tôt, avec ton CV et tout, je vais te présenter au DRH. Dès demain Oui, dès demain. Waouh C'est super. Ça devient intéressant, Kéila. Hein. Non, En tout cas, man, bon, je ferai tout pour y être, mais franchement, merci beaucoup, Charlène. Pas le problème. Hein. Peut-être. Je te jure. En tout cas, merci beaucoup, c'est gentil de ta part. Il n'y a pas de problème. Sacré Charlène. Elle a été de nous surprendre. En tout cas, c'est gentil de ta part. Ah ouais, ça c'est tout ce mm. que j'aime. C'est trop gentil. Mm. De toute façon, demain, mon tour, je serai là-bas. Trop, c'est trop. Monsieur Diop Montaigne, si nous pas A ou B, dis-nous Parce que je ne peux pas concevoir, mais accusés d'air, sans bouton ni, tu me dis que nous finissons gis nga booy li ngay wax ji yëpp du wax gis nga monsieur Diop ñun ñëpp la accusé man moom boo yaram kenn xamee ñu jël bu bu seetlu sama der damay démissionner. mais boy calmez-vous yéen kenn accusé wu leen deel nañu accusé mais bàyyi leen ba monsieur Diop ñëw dee waxul li ngeen di wax mais lan la d'abord on peut pas se calmer. mais boy calme-toi. Sanas calme-toi d'abord xanaa déggoo somme bi ñu jël. déggoo bu ñu soral d'abord mais boy tu surveilles ton langage. amul bu ñu soral mais il a parfaitement raison. bonjour. bonjour. vous attendiez monsieur Diop. Eh bien, je vous annonce mon retour à Big Perfect. li xew ah. et monsieur Job a déception bu mais di ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort et je vais relever Big Perfect

Non, avec cravate, ça fait trop arriviste. Je suis bien. Fomp na sa daal di. mais du yaa ko fomp qu'est-ce qu'il y a tu es stressé. wax não dëgg man sama xel xam fu mu nekk mais fàtte woo dara t'as tout pris. lépp nickel defar nga lépp. defar ñaan rek bon je voulais d'abord m'excuser par rapport à mon comportement Je j'ai été désagréable bah pareil je m'en veux sincèrement je m'en veux. tu t'en veux comment. mais par rapport à ce qui nous arrive nos malheurs nos problèmes. non ça là je t'arrête tout de suite tu sais que waxtaanoon on et pour moi c'est de l'histoire ancienne donc euh, c'est pas la peine de s'y je sais mais écoute-moi gis sa entretien bi nga jëm

pourquoi tu dis tu entretien bi am ko ak ñak ko tant que je suis avec toi tout le reste c'est des détails affaire bi du man kessé certes j'ai souffert mais yow tu as toujours été là musuloo mu bay musuloo mu abandonné c'est ça une équipe le la gëm tant que tu es là je peux dire que les mi ngi fi quoi ay détails yu ndaw et on est bien D'accord D'accord. J'espère que tout va bien se passer. Ça va trop bien se passer. C'est une série. defal ñaan rek non dina baax inshallah. Allez, à tout à l'heure. Ok, à tout. dem na kër Layla waxtaan nañu nak bu yag man ak mom waxna jox ko mu wax ma delo waye si man fii mu fa jele teena sama xel trop mm-hmm. te si ma bëgguna xam yow si réellement nabu mi mom nga bëgg def soxna. yaay nabu man dama ko bëgg malgré que suma ko takkee dugal ko ci bir kër mën na am duma may jam mais man mom la bëgg. Wah mhm. ya. ndax mujj ak taa Sofia. Ah, taa Sofia ñëw na fi ñu waxtaan nañ waxtaanoo ngir àddina. Mm. sëy bi tegal mm. naa ko condition it nangu na ko su paree ba ñëwee daal ma may la nga sëy. yow yaay ni nga métti ay affaire yow rek laay jàppale bu nangu rek. Mm. bu ñëwee tey tey doo fanaan. waaw façon man wóolu naa la man ah, daal na gaaw rek ngeen may ma dem nag. yow baa jàmm. <laughs> man fu ma jëm ak siir. man de moom fi andi

jiital sunu mbëggee di xeex di xeex ba sëy bi am mais bu mu amee ba tey du mu jug ci ay problème moom bi ma takkee la ñàkk liggéeyam te instant bii nii may wax ak yow mi ngi nekk di def entretien mais dama tiit ñu bañ ko jël foofu ndax dama jàpp ni lépp man da man maa tëj ay wërsëgal moo tax ma lolo lolo looloo waraloon tey sama tànk fii pour nga conseiller ma loolu de ma Et tamit. Eh je suis déjà là. tu vas? bien? Bien, merci. Écoute, attends-moi, je vais revenir. D'accord, à tout à l'heure. Camara, ça va? Bonjour. J'ai ramené quelqu'un à Ndaw. Écoute, recevoir quoi? parce que pour postuler cet temps hier, mais après encore, wax d'accord. au fait euh, ma j'ai oublié de te dire, mais parce que vous me direz que des mois Sérieux Oui. Écoute, c'est pas grave. Recevoir quoi Après, nous voir, d'accord Ok, merci. Merci. Et Tu peux rentrer. Oui. Après, je vais t'appeler, d'accord Allez, au Ok, à plus tard. xam nga leg leg ñaari nit dinañu bëggante waaye seen wërsëg du ànd loolu dafa nekk loo xam ni dafa am ci sëy waaw moo tax sëy balaan ciy dugg danga koy set waaw ko war a bu baax a baax a baax loolu mooy li nga xamante ni moom jaadu sëy ci aras la ko suñu borom di fase léeg-léeg nga gis ñoo xamante ni euh, dañuy bëggante seen wërsëg ànd lool waaye suñu boroom du dogal seen sëy siir de sa yaay te duma dugal mukk ci lu bon siir kanam bu ne indil nga ma ko fii waaye kenn laa xam ne jikkoom doy na ma trop te siir xoole nga ba mu rëcc la muy sala waaw sala Sir, yow xalé nga te sey sir sey dafa doy war liko tak tasuko du ben fan du ñaari fan motax ma bëggoon nga xam foy tek sa tank bu baax sir sir xalé nga de tolo go ci am bay ñak nak xalé jigen yaang fi na gañ dara defal ndank bala ngay dugg ci li yaay nagu tolloon na fi si ay tolof tolof yoo xam ne que lu ko dal man maa ko te dama yëkkati woon sama kàddu wax ko ko te dama ne loolu du musa a dañ yaay nagu amaana su ma ko takkul mun na ci xaru. yow xam nga luy xaru mais yow li nga naa def mooy xaru mais wax nga ko sa biir wax nee nga su ma ci takkee su ma takkee Nabou ëllëg mën naa cee jànkonteel ay problème mais sir nabu nga nar a dëkk ak moom à vie coo guddi coo bëccëg jàppal bàyyi. mais siir loolu mooy xaru siir xale nga siir xale bu ndaw nga dara jomm la ci àdduna léegi yaay loo bëgg ma def lu ma ci xam lu tey nga mës a sëy mës nga cee dugg benn yoon xam nga li ci nekk te bëggoon naa boo ci duggaat nga xam bu baax fooy teg sa tànk duma leen nag li ngay def xam nga li ngay def bu baax léegi-léegi tam nga gis koo xam ne dafay takk soxna Euh, affaire yi jafe lool ci moom waaw bu ko defee euh, foofu dañuy dem sax ba recommander la nga nga takk ñaareel ngir sa wërsëg mën a ubbeeku waaw kon jigéen euh, dëgg-dëgg nekk na loo xam ni lu lu mën a ubbi wërsëgu góor la. Eva moo yore sa wërsëg Eva mooy sa doon ndax situation metti yi ngay dund yëpp. Eva daf ci taxawu taxawaay bu jéggi dayo waaye day sa situation bii nga nekk lekkatoo naanatoo nelewatoo Marichou rekk a ci mën dara xam naa bu baax li may wax ndax Marichou ba ngay tux foogoon nga ne yëg ko yëg naa ko benn guddi ngeen tëju ci nekk mu dindi ko ba mu set wecc bon nag nga xam ne loolu noonu am fi mu la taxaw xam naa ko bu baax yaa ngi am loo xam ne benn góor amu ko ci àdduna te man day Marichou bu fi nekkoon sama xel dina gën a dal ndax xam naa ne situation bi ngay dund dina dëñ ca na mu gën a gaawe mbiru xaalis boobu nag bàyyi mu wodd bul ko xalaat bul ci bul ci sonn na nekk sarax ndax gis nga yu metti yu lay dellu dem beneen ñëw te loolu dafa metti sa xaalis boobu bàyyi ko mu dem yal na la yàlla indil lu ko gën yal na la yàlla defal lu ko gën waaye lii ngay dund nii mu metti lool xam naa ne benn jigéen mënu ci dara lu dul Marichou te nga fexe nag ba Marichou dellusiwaat ci kër gi ndax moo gën ci yow. yal na la yàlla suturaal yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla la fa cat am na cat rek a bëri ci yow. sëy kenn du xanaa xamoon ni am na ñoo xam ni même boo duggee ci ñoom sa bakkan mën na faa des. bakkan. Mm-hmm. naa li ngay wax nii mi may tiital léegi man imaam lay def. ah yow su dee lii ñu la seetal lu am la. Fek yang ngi ci sëy bi doo jóg ci tolof tolof waaye nag dinañ ci waslu ak dinañ ci def ay ñaan insha allahu euh, lépp lu ñu mën dinañ la ko jàppale insha allah waaw waaye nag am na loo xam itam yow mun nga ko defal sa bopp ndaxte loolu bépp julit mun nga ko defal sa bopp mooy li ñuy wax la si su fekkente ginaaw geewe japp nga ba set nga julli ñaari rak nga ñaan sa borom nga ni ko yow yalla yow yaay aji xam ji yow yaa gëna xam yow yalla sama borom yow yaa gëna xam li baax ci man bu dee sëy bii ma toog ci sëy bii moom mooy li gën ci man yow yàlla yàlla nag ma ko defal ci barke Muhammad bu dee ciman, gënul ci man yow yàlla yàlla na nga def li gën loolu ku ne mën na ko def bu ko defee suñu borom mën na la ko wan ci ay misaal donte nag ci njëlbeen sëy bi nga ko waroon def laata nga ci dugg waaye nag ba tey euh, comme ni wax il n'est jamais trop tard pour bien faire donc mën nga ko def waaye nag wàll wi ñu ñun itam insha allah dinañ la dimbali bu baax a baax lépp lu ñu mën ci wàllu ñaan dinañ ko def d'accord imam su ma demee incha allah dinaa def li Siir man sa yaay la Siir boo amee naqar ma am naqar heure boo nekkee ci bànneex xamal ne maa ngi ci bànneex gis nga xuloo yi ñuy def nii yépp man ak yow damay xuloo yow ba pare toog sama biir néeg di jooy dara neexuma ci. si dara jom la war nga tak jabar da ngay tak mais nga la way si takal ko xamanteni ni du lu fitnal loolu rek la lay ñaan ndax bëgguma lu la metti bëgguma nga dund dund gu metti bëgguma nga souffrir ne mbam wéx na doomam waaye bañu ko man siir aw ma dul xool fi ngay teg sa tànk siir man Marichou ni mu mel fan yi neexuma de Marichou yaay Marichou génnatul dematul fenn du def dara day tëdd fii rek lekk sax pour mu def ko problème la nga foog ne doo ko delloo jëkkëram rek moo gën une fois nab Marichou tas ma sëyam décision bi décision am la téye naa ko dama ko war a téye sëyloo naa ko te sëy na it te nangu na sëy bi su jëlee décision ne dafay tas sëyam gii ñu dellusiwaat samay loxo dama koy téye ah du ma ko sànc ma bi ci kër la génn dem sëy ci kër la génn dellusiwaat fii samay loxo. waa xam nga loolu yëpp dëgg la mais da nga war a xam ne moom pot la bëgg te pot instant bii nii. Marichou fayul de Marichou dafa divorcé te lu nekk xaj na seen diggante ñoom ñaar loolu la yàlla dogal doonu ma ci dara. bul fàtte pot am na jabar bu nekk këram de ma kooku mën na tax mu fàtte Marichou. kan Eva waaw <laughs> tot la gën a xam fu mu xoyam xoyamee Marichou mii nga xam te ne ne ay jamonoom ñu mu bokkal génération nu mu sëy kenn sëyee ko fa pot ku ko teg rangelom fukki jeeg ak ñaar fukki jànk tegal ko du ko jëndeeg Marichou loo ngay xalaat Eva mais ko war mën a fàttaloo Marichou <laughs> kon ma xam ndox jaaratu yoonam wax ma leneen Marichou fi mu féetee pot keneen mënu ko fa féetee mais instant bi Marichou pot la bëgg té li ni mom wax dëgg yalla ah man de suma sañon da fay délu kërëm li ci bax nak nag ah damaa da cee baax bés bu yàlla dogalaat si diggante gitu ñaar pot dina xam kuy marichu dina téy sëyam téy pat marichu far fos na ku na xam na ni pot fi la ko tek ci bakkanam seytanam marichu la. elle fait genre rek mais pot rek la bëgg instant yii. moom dem la bëgg wante mi yaa koy ci tok bi ni eh xol boo xaté ma wax lolu bonté de. gis ma téelu. Hmm, ya, ya. man ma téelu sama kër gi ma njëriñ la nga sëy kii sëy nekk seen kër ma dem waa ko sol sama grand bu baax ñu fekk si leen mooy sama sag bi. lu hmm. ma la téye fii ci kër gi. c'est jàppale ma nag. kon baax na. yow. Eh. yàlla ba ak yonent bi moom ci yow laa ci eh, damay laajte rek. yaa ma sosal indi histoire xam nga instant ñoo ngi si jàmm. <laughs> saa ko moo gën ci yow sax anam. mu ci néegam. ndeysaan. lekkoo na nga tëdd nii rek ah li baaxut da nga fàtte yàlla mbiru yàlla la du mbiru doomu aadama soo lekkul da xaru boo naanu da xaru te li bëgguma ko bëgguma ko yow nga lekk nga naan lu jàll amut lekkal tuuti nga naan muy gën moo deful fu ne help. Macam mereka santai tiada dek. Na ka kiyo. Ce. dal buat kan ah, kan me ya ka ci dara ba fi mangai baga ba. Li. Ko mu kan neje. Dal do na war da. Santai, lo. Santi. Santi. Kai. Do na war. Buat me ya ka dal. Muradi ki. waaw de looy ree ah dama sant yàlla rek ah yi di jël nañ ma alhamdulilah rabil alamin ku la bàyyi nga caabi sama fit bi dina doon def <laughs> alhamdulilah laa ilaha illallah ah, ah sant yàlla la yàlla dogal ah alhamdulilah yow tamit mère li nga liggéey sama kër papa xam nga dañ koy fay mu tanil nag mu tanil de ah. bilaay mu tanil ay waay alhamdulilah sama doom bu góor bi am na liggéey ji ah, weer dee rek nga war a fa yeeku ay waay alhamdulilah sant yàlla rek waa man kay sant naa bu baax ana borom ana borom yëf yi moom am ci sala moom daal moo fi teg këyit gii génn sànq fan la dem ah tàggoo ma de këyit gi daal la fi teg daal di génn xanaa warul sëri ah xaw de mën naa la waxu la dara weer dee sama doom ji fa yeeku

non xam naa ne doon na. ko defon dara bo ñuy max ko. mais def nga ko dara mère. luma ah, ko def defuma ko dara. sala ngi ni di ma wax ne ma da fay dem keur yaayam pour tok fa quelque temps. lan nga ko wax wala lan nga ko def ya mo ko dara ta sago ma non non mère nañ waxat xool. so te te bàyyi man ma dem bàyyi man ma. fo ja fo ah foo eh, ko fo ja. mais looy def ni demo bàyyi ma dem jeli sama jaba deglu ma do dem xam na li mu def. sala dalaa bëgg te xam na li mom mo la um ba munoo am dara mo tax mu dem xanaa ma dafa dem rek ñu embauché nga ci wax yooyu ay waxu moo la. waaw léegi ban um moo fi am. buur na yàlla waaw léegi yooyu yëpp ay détails. dégg nga wax la mais bu gaañ sa bopp bàyyi dem. doo dem asal ngaa dem booy dem ñu rejeté contrat ba. bu yeboo nañ xoolal na naa ñàkk liggéey bi. lii su ko amee te sala nekku fi. ñëw de soxlaatuma ko. waxal ba dem wala woo waa koñ bi yëpp yuuxu yëpp yow jàppale ma nii. doo dem de. non yooyu yëpp du ci am waa toogal ma wala toogal toogal. <laughs> yow toogal yow yow toogal. waa léegi toogal doo dem de Ya, léegi man su ma jëliwul sama jabar lan nga bëgg ma def. bàyyi ko ba ca kanam nee na doxal ba ca kanam. mais nan laa ko fay bàyyi li ma am nii moom moo tax ma am ko. Eh. su may jaayante di rey sama bakkan pour moom la. Edu déggoo li ma la wax Sall xam na li mu def. waay mère bul wax loolu waay waay kii doo dem doo dem doo dem. mère bul gaañ sa bopp. doo dem xanaa boo ma dëggatee ba ma wax doo dem xanaa ma def nii sax ba mën a toog bu baax mën naa tëye ko bu doo dem dem moom doo ko def. waaye léegi jógal jógal. toogal ba pare ma jóg. waaw jógal toogal ba pare. waaw jógal toogal. kay toogal nii ma toog nii di la garder salaamaaleykum liggéey salaamaaleykum dem fa rek jëli ko ñu dàq la doo dem moom dem moom doo ko def ba ko mu toog ba ba ca kanam ba nga liggéey ba commencé fa yokk ba dëgërlu doog koo jël waaye doo dem. liggéey bi de bu sala ñëwul du ma ko def. loolu moom na la leer bu sala ñëwul du ma ko def loolu moom yeggaguñ fa yeggaguñ foofu. ay poésie littérature affaire yooyu. chocolat chocolat la caramel fond. eh bébé. je ça va ça va bien. Je ni ma sonnee sa anniversaire la moindre des choses soo koy invité doo B combien de fois dois-je te dire que c'est mon pote. c'est ton pote Basile a un livre la tey anniversaire. un livre oui nous partageons la même passion je te dis une chose mon ami est avec lui soit tu l'acceptes soit nga xam et puis ça aujourd'hui c'est un jour important pour moi alors s'il te plaît ne m'énerve pas. Edou. Yeah. Pourquoi tu es là tout seul. juste pour prendre de l'air. T'es sûr. Hmm. tu sais Mal, Je ne veux pas que tu t'ennuies. c'est vrai que je fi mais bon j'arrive à gérer Je gérer ah c'est bien même. Hmm. mais tout à l'heure on a la sa robe bi dafa nice mais tu as mis une robe magnifique je te jure. <laughs> Yo. Hmm,